yuusufa laaj naa rakkam ja binyaamin daal di def ay pexem ba jël ko mbokk yi ne ko déedéet suñ bàyyi mag la te xale bi te binyaamin rek la doon miisloo jëlal kenn ci ñun bàyyi ñu delloo ko de yuusuf ne déedéet du ma jël mukk lu may koo xam ne suñ bagaas ci moom la nekk fala mastayaasoo bañ naagoo yey soo naago nañ minu ci moom xalasoo beru nañ nag maanaam intasaloo beru nañ na ji yéen di way diyaale maanaam yu naa ji mu ngi diyaaleeg baadum ñeneen ñi baadal ñeneen ñi de bañ laajee Binyaamin ba jot ñu daal di beru nag ngir xool lan lañ war def ñu ngay diisoo xaala wax na kabirum seen sin nañ ci at wala ka ca ci xel de maanaam ruubil moo ca ci at awra yéen wala ka ci xelaat mooy yahuda mu ne leen alam taalamoo mën a xamu leen annaa baakum naka bàyyi seen xadaa xasa jël naa aleykum ci yéen mawsiqan kóllëre ahdan kóllëre mi ne laay bu jógee ci yàlla lamma tasalu bañ beroo nag yete naa jëw na ñu ngay diyaare di waxtaan naka la ñuy def ba yóbbaale Bilyaamin de xaaloo ñu ne nam si nañ dem faqat dong arajulu góor gi daal suriqa sàcc nañ ko wala boog saraqa sàcc na boo xis ñu jàpp ko ñenn ñi na a ah, nañ ñibbi rek buñ demee daal wax suñu bàyyi ne ko Binyaamin dafa sàcc ñu jàpp ko jeex na xaala wax na lu mu ñee leen ruubil mooy ko ca mag ci at wala nga ne yow daa moo ca mag ci xalaat ne laa taqulu bu leen wax loolu yomb na lool laa soo bu leen fàttee annakum ne yéen ante ah, itam jox ngeen ah dan dëhër wa misaaxan ak kulëre li abikum ñeel seen baay de da ngeen a fasanteeg seen bàyyi kóllëre ne da ngeen sàmm Binyaamin ba du sànku ne Yusufa sànke woon kon bu leen dem ne sàcc na jàpp nañ ko ndax loolu du gëm de wa min qablu bu njëkkoon maa farattum sagg ngeen fi Yusufa ci njëkk lii farattum sàggan ngeen fi Yusufa ci Yusufa hatta daa ba mu sànku ngeen bëgg a sànkati Binyaamin mi nga xam ne ni moom la suñ bàyyi di waaw misloo di fàttee naqarab Yuusuf de falan abrahaman duma tàqalikoog ana man laahu faariqu duma tàqalikoog haadil arda bi suuf mooy ardu misra falan abraha duma tàqalikoog al arda suufu misra hatta yaasana lu mooy mu digal lii ñeel ma abiya sama baay binaaw ci dellu yooyu jëm ci moom aw yaxkuma wala mu àttee la yàlla bi xalaasi ak yi te sama mbokk muy Binyaamin boobu moom yàlla xeerul xaakimi ne moo gën ci way àtte seen mag maa loolu bañ ne nañ ñibbi buñ demee ne sàcc na jàpp nañ ko mu ne bu leen wax loolu de kanaa gisu leen ne da ngeen a seen baay ne dangeen ko sàmm ba delloo ko kon def leen pexe mu ngeen man ba delloo ko de rawatina nag ba nga xamee ne sànkoon ngeen yusufa waaw man moom du ma tàqalikoog suuf si fii laay des ci misra lu mooy sama baay digal ma ma dellu ca moom rek laa wax de wala boog yàlla xatte may ma mayu baay binyamin bu dul loolu daal du ma jugee misra yéen nag irjion dellu leen ilaa abikum jëm seen baay irjion dellu ilaa abikum jëm seen baay faquula wax leen ne abaana e yow baay suñu innam naka naka sa doom ji saraqa na de wa ma shahid naa seede wuñu alay ci moom bi sariqati si illaa bi maalim naa lu lu ñu hóolu ay teeqan naa lañ min mushahadati saa mooy gis nañ waaw nattukaay ba fii raxli ci laxasam gare mooy bagaasam ya yéen nag man ngeen a dellu bu ngeen demee seen bàyyi ngeen na ko sa doom ji dafa sàcc lañ wax nag ñun dañ ci am lu ñu leer ndax bañ seetee saasa ca bagaasa mi lañ ko gis wama kun naa nekkuñ nag xaafisina di way wëttu lil xëy bi ñeel faddu maam li maa xaaba ñeel la fad ñeel fadd naan naas ñun maanaam en na ma atay naaka bañ la joxee almawasiqa kullaya maa kun naa nekku ñoo naa la mu di xam and ma ne moom waaw sayasriqu dana sàcc de bañ lay gëñal ne danañ ko indi xamuñu woon ne bu ñëwee day sàcc loolu leerul ñu woon moo taxoon ñu gëñ moom nag sàcc na jàpp nañ ko rek laa wax de bu ngeen demee wax leen loolu seen baay nee leen ko was al laajal alxariyata dëkk allati bi nga xam ne kun naa nekkoon nañ fiyaa ci moom hiya dëkk boobu moo di misra de nee nañ ko arsil yónneel ilaa ahlihaa ci waa misra fasalhum laaj leen bu ngeen demee seen bàyyi ne ko su doom sàcc na gis nañ saa buur ba bañ koy seet ci bagaasam yi lañ ko gis ñu daal di ko jàpp rek laa de boo ko weddee nag yónneel misra nga laajte danañ ko dëggal de wala iraak njëgg ma mooy asaabul ayri ñoo njëgg ma allati nga xam ne aqbal naa jublu nañ fiyaa ci moom mooy hum ñoom qawmun aw nit la min kanaan am na mbooloo mu jugee ci kanaan wu demoon laajal ñooñu danañ la dëggalal ne waaw Binyamin dafa sàcc de way naa naka ñun la saadiquuna way dëggal dañu rek laa wax de fi qawli naa suñu wax wax nañ dëgg loolu la leen wax ne bu ngeen delloo wax leen ko seen bàyyi farajoo ñu daal di delloo nag ilay ci Yaquba waqaaloo ñu wax loo ñeen ko zaalika loolu de bañ delloo ñu wax ko lii gëmul leen lu tax gëmul leen mooy lañ jiital ci njumte sànq gañ sànkoon Yuusuf moo tax bañ layee lañ layee sax dëgg la ci lañ gis ndax ñoom lañ xam rek lañ wax waaye seen bàyyi gëmul leen de gëmul leen ndax ñaar benn ba mooy xam na ne Binyaamin du sàcc ndax doom ku ko jur xam ko kon mënul dëggal ne sàcc na de te wax na dëgg sàccut ñaareel mooy njumte gañ defoon bu njëkk moo tax mu yaakaar ne ba léegi rek ci pexe lañ nekk kon nga dégg ci ne boo defee lu ñaaw ba nit ki ñaaw njortu ci yow moom xamul bakkaat yow yaa am bakkaat ndax yaa ko yóbbee ci ñaaw njortu goog de boo bëggee nit ñi rafet njortu ci yow dangay def luñ xam lu leer lu rafet de waaye soo defee lu ñaaw ba nit ñi xoolootuñ la su boobaa ñoom amuñ bakkaar yow yaay ki am bakkaar yaay ki am yeddaange rek laa wax moo tax yonqub ne xaala wax na ne ba li fi nekk sawalat taaral na ay zeyna taaral na lakum ñeen leen anfusukum bakkan seen amran am mbir rek laa wax de fa faaltumu ngeen def ko mu ne leen li ngeen wax daal dara gawma ko ci seen bakkan bee bëggati dara rek ab pexe rek ci ngeen nekk itam itamahum tuumaal na leen lima sabaqa ngir la jiitu na minum si ñoom min amri yusufa ci mbiram yusufa de li tax mu tuumaa leen pexe rek ci ngeen nekk mooy bu njëkk dañoo pexe loon yusufa sànq ko moo tax yoon bii mu na ne pexe moomu bëgg ñëwaat de fekk walaay du pexe moomu xanaa ki pexe kay mooy yusuf waaye pexe mu baax nag la def moom mu ne waaye nag fa war na ma sabrun muñ jamilun ba daa aji rek laa wax de mu ne damay muñ muñ gu rafet rek ci seen pexe yi yaquba yaquba saalihun ku baax la laa yaqul du wax illaa sabrun lu mooy muñ jamilun bu rafet de sin sen pexe ngeen nekk waaye man danaa muñ muñ gu rafet asallaahu amaana yàlla andi yaa teen yi ba mu andil ma biim ci ñoom jamian mbir mi ñu mboole rek laa wax de waaw ana man arjo maa allah yàlla andi yaa teen yi bi yusufa ci bin yaamin ak bin yaamin wa rabbil ak rabbil wala yahuda aydan ba tey jamaa mu ñuy mboole de yaakaar naa ne yàlla dana andi dana ma andil yusufa ak rubil waaw ñoom ñëpp danañ ñëwaat de waaw ci kàttan ak yàlla maa ngi yaakaar loolu suma borom nag laa wax de innahu na ko borom boobu woo moom alaalimu waa ji xam bi xaali sama mbir alaakimu waa ji xereñ fi sana yi ci jëfam de yàlla moom mu xam na li ma nekkee te buur bu xereñ la lu def rek waaw loolooy njëriñ kon doyloo naa ko laa baren yaqouba waxe loolu muy seen baay wa tawallaa mu daal di dëddu anum ci ñoom taarikan daal di bàyyi xitaabum wax ak ñoom sànk nañ binyamin rubil ñëwut la ko doom yi wax gëmut ko tuumaal na leen ndax ñoo defoon lu ñaaw de waaye njàqare googu yëpp fàtte na ko nag delluwaat ci njàqare yuusufa musiba bu bees bi xew daf koo fàttaliwaat ñàkk gëm ñàkkul yusufa mu wax ñoom ba pare daal di yaa asafa woonaa sama njàqare yaa xusni woonaa sama njàqare ala yusufa ci yusufa rek laa wax de waaw tazakkara fàttaliku na xusna woo njàqareem alqadima baa ji jiitu de ala xusnu njàqare al jadid bu bees asaara jéqi usnoo njàqarem alqadima bi aji jitu waaw jooytu sax bin yaamin ak saara mujj na yab kii di yusufa de ma baka jooyut alal alal mafquday ni ci ñaar ña ñàkk axira ni ñeneen ña yusufa rek ndax njàqare gi gu bees gi daf koo fàttali gu yàgg ga ana léegi nag njàqare gu bees gi lay jooy de wa bi dat weex na maanaam faaru naa ay naaw ñaani bëtame min xus ni ngeen njàqare in maha faaru naa sawaaduhuma ñuul ñuuli bët ya weex tàll wa baddala mu remplace bayaadan ak weex min ci redi bu kaa yi ngi tat ak jooyam yanquba tourné ne oo oh, naa sama njàqare ci yusufa di jooy rek di jooy ba bët weex tàll mu gumba mene xusni ngi tatak njàqare min siddati xusni ngi tatak njàqare foofu moom kazimun kuñ jàqloona rek laa wax de maxmumun kuñ jàqloona makrumun kuñ tiital la daayiman ba faw kaana nekkoon na xusnoo njàqareem yusaawi du toloog xusna sabina sakla njàqareeg juróom ñaar fukki jigéen ñu yara dal jigéen ju am doom muy benn doom mu yaakaar ko doom ja dee na muy tiitee juróom ñaar fukki jigéen yu toll noonu maanaam juróom ñaar fukki jigéen yu am doom yaakaar ko moom kese seen doom dee kenn ku nekk njaqare ga nga am buñ ko boolee ni muy toll moom la yusufa moom la yaquba jàqawoon keroog bis boobu moo tax mu jooy ba mujj gumba addinaa ngoog rek laa wax de kenn du ci mucc rek de bu kenn di mucc yaquba dana mucc de waaye jooy na ci àddina jaaxle na ba bët ya muuru te njabootam ak ko tegal laa wax de te njaboot gu baax la kat histoire bi da nga ci jàngee ne kilifa war naa muñal ñam xilif ndax boo xoolee tontu gi doom yi yaquba yi di tontu yaquba da gis ne tontu ba des naa rafet de ndax nañuy wax ak seen baay dañu mel ni kuy wax ak seen morom te seen baay kat ab la waaye léegi léegi daal bu ñu ko tontee mu mel ni ñuy wax ak seen morom te teewul ñu baax lañ kat ñoom ñëpp muñ ne nekk yonantu kon war nga mu muñal njaboot gi rek laa wax gi nga xam ne nii amaana si gi xool la sax bu baax waaw mënuñ ko léegi léegi buñ juumee waaw nangul leen ko. xaaloo ñu ne ko tallaahi ñu ngi gën ci yàlla taftawu yow doo dañ taskuru di fàttaliku yusufa yusufa hatta takuna ba nga nekk xaradan waa di aji sapp dee aw takuna wala nga nekk sax minel haalikeen di bokk ci way xaal kuy mooy way dee de ñu ne ko yow daal doo dañ mukk di fàttaliku yusufa ba nara dee ngir xalaat yusufa lamma zakara ba mu tuddee yusuf xaaloo ñu ne ko ante yow laa tasaaru doo dañ taskuru di fàttaliku yusufa yusufa hatta takuna ba tëgg nekk xaradan ay mushifan daa ji sapp alal halaaki ci deeli tuuli maradika ngir feebar bu yàgg bi aw takuna wala nga nekk sax minal haalikiina ci way dee laa tasaaru doo dañ mukk taskuru di fàttaliku yusufa yusufa hatta tamuta ba nga dee faqat dong de loolu lañ ko tont ñu ne ko yow daal yusufa du dañ sa xel ba ba ngay dee xaala wax na la um ñeen leen ne innama ashku naka dana ma tawat bas yi sama njàqare gu mu mënul ñàkk feeñal bas su mooy njàqare bi nga xam ne foo nga génne ko ndax fees na sa xol de mënatoo koo nëbbu loolu mooy basu woowo moom basu azimul xusni mooy njàqare gu tat al basu woowo moom al xusni mooy njàqare ashadidi gu tat allazi gi nga xam ne laa yumkinu du jàpp ni kitmaanu kitmaanahu nëbb ko nga xam ne laa budde du mën a ñàkk li saay bi ñeel boromam an yabu sow mu génne ko wala yasbiru du mu ñaale ci moom hatta yabu sa lu mooy mu génn ko leen naas jëm ci nit ñi de loolu mooy basu Yaaqub nag nee man njàqare gi nekk sama biir xol nga xam ne foo mu génn du ma ko tawat benn yàlla rek laa koy tawat de innama ashku naka dana ma tawat basi sama njàqare wa uzni ak sama tiitaange laay jëm ci rek de laa ilaa xayrihi du ko tawat ku dul moom foofu la ji mooy ki nga xam ne tan fon dana jëriñ a shakwa moom yàlla rek mooy ki nga xam ne boo ko tawatee njàqare mu mën la koo teggil kooku rek laay tawat sama njàqare de histoire Yusufa ngoogu dana la jàngal ne léegi-léegi yàlla na mu ceew ak waaye daal balaa moo ñëw faw nattu ba yàgg te métti yonent yàlla yaquba ñàkk na doomam ñaan na ba sonn waaw jooy na ba gumba jafe-jafe bu ne dal na ko ca waaw te yàlla jëlawut ko yusuf yusuf fam nekk nekk na fa buur di dund dund bu neex nekk ku kawe waaye saa yu bëggee bind baayam leetar rek jibril na ko déedéet waaw bul ko bind saa yu demee rek ba bëgg bind baayam leetar jibril na mukk bul bind rek laa wax de waaw xam nga ne yàlla bëggagul mu feeñ dégg nga loo te te mujj rek mooy xewal gu rëy gu leen yàlla defal mooy dajale baay ja ak doom ja defal leen nguur defal leen teraanga jox leen lépp luñ bëggoon dëggal géntug Yusufa ga mottali xewalam ci ñoom de moo tax léegi-léegi yàlla dana la xewalal te yow doo ko xam yàlla yàkkamtuwut ay nattoom moom bu ñëwee dafay mel ni dootu baaxati de muñ leen yéen borom nattu yi loolu laa bëgg a wax da ko jàngee surtout Yusuf mooy yéen borom nattu yi natt yi yàgg lool muñ leen de guddi goo gis bëccëg ca topp guddi gi Yaquba lëndëmoon na lool waaye bëccëg ba mu ñëwee leer na lool te neex de mu alamu dana ma xam mu ne laay ci yàlla maa laa tax na lu ngeen xamut de Yaqub ne man xam naa ci yàlla lu ngeen xamut lu mu xam mooy lan min anna ruyaa Yuusufa ne géntug Yuusufa ko sidqun dëgg la kon boobu Yuusufa xayun aji dund la mbokk yi nee na Yuusufa na Yaaqub ne mukk ndax Yuusufa lam gént mooy man danaa ko su jootal ak yaayam mooy tantaam ak samay doom muy fukki doom ak loolu dëgg la dana am de kon Yuusufa deegut hoo moom itamada sukkandiku naa laaru yaa Yuusufa ci géntu Yuusufa ga andoone moom woo moom yusufa yusufa la laaye mootu du dee xataa yes judoo lu ñu sujootal la woo ñeel ko jamaan bi mu ñuy mboole wala nga ne déedéet dafa gis malakul mawti ne ko yaa rey sama doom yusufa mu ne ko mukk reyu ma ko de yusufa ngi dund looloo ko xamal ne yusufa deewut de wala nga ne dafa janoog till yi ne leen till yene lekk sama doom till gi ne mukk gàtt gu bokk si yow sax xalaatuma koo lekk waxuma laa sax doom dégg nga mu xam ne kon Yusufa deewut loolu la leen di ne man xam naa ci yàlla lu ngeen xamut dee su ma xaala topp mu ne yaa baniya ee yéen sama si ndoom isa boo dem leen fa taxassasu ngeen gëstu min Yusufa ci Yusufa waa xi mbokkam isa bu dem leen utlubu sàkku leen xabaru ma seen xibaar yéen samay doom dem leen ngeen gëstu ma Yusufa ak mbokkam ma Bilyaamin de ñooñu deewuñ yàlla dana leen andiwaat wala tey asoo bu leen naagu min rawxi laay ci yërmande yàlla min rahmati ci yërmande yàlla de innahu naka li am baam laa yey asu du naagu min rawxi laay ci yërmande yàlla rek laa wax de illa al qawma lu may nit ña alkaafiroon ñu dafay weddi de yonent yàlla yanquba mu ngi bul naagu jaaxle na ci yusuf réer na ko jiit bu yàgg waaye teewut ba léegi mu ngi am yakaar na yàlla dana ko andi mu ne yéen samay doom dem leen ngeen gëstul ma mbiru Yuusuf ak mbokkam ma Binyamin te bu leen naagu ci yërmande yàlla yàlla mën na ko andiwaat yërmande yàlla xéeféer rek moo cay naagu mu lay jàngal lu natt bi métti métti amal yaakaar sa borom yàlla léegi-léegi muy defar yow nga yaakaar ne xëy ñëw alxeyru yaati ala surati charri léegi-léegi xiw dana ñëw ci melaay fantaliqu dem leen naxwa misra ci misra de ngeen gëstu laan ma yusuf ak mbokkam falamma daxalu bañ duggee xale yi ci moom ñu ñëwaat nag ci buuru misra fekk mooy yusuf xaaloo ñu ne ko yaa ayyuhal e buur bi massana laal nañu wa ahlanaa suñu njaboot adduru lor maanaam xiif adduru foofu mooy aljumu xiif wa jiinaa andi nañ bi bidaatin ci ay dërëm musjaatin yada way lamb ay madfaatin yañ jañ yad foo haa dana ko sànni kullu man raa képp koo gis li radaate aa ngir bonam ngir suufeem suñu dërëm yi ñu yore xamut benn njariñ kooko jox rek mu sànni ko ndax amul njariñ te bëgg nañ nag luñ dundee ndax xiif nañ de kon faaw fi matalal lanaa ñeel ñu al alkeele natt wata sa dax saraxal alay naa si ñun bil musaamati nga bil musaamati nga baal ñu an radaati bidaatina ci suufeeg suñuy dërëm bi inna laa naka yàlla yeg ci dana mu fay al mutasaddiqiina way saraxee rek laa wax de mbokk Yuusuf yi ñëwaat ci buur ba ne ko yow buur bi ñun de ak suñuy njaboot xiif nañ amuñ luñ dundee te xaalis bañ yore mënul jënd dara kon amuñ luñ la jox sarax ñu rek nga nattal ñu luñ dundee rek de boo ñu saraxee yàlla lay fay mbokk yaa ngay saraxu nag yusufa yaram ba daal di daw ndax xam na ne ci mbokkam yi ñuy saraxu ndax ñoom war ñoo lekk sarax ak laaw de waaw ay yonantu lañ lamma talaboo bañ sàkkoo asadaqata sarax wowum te ñoom anbiyaaw ay yonantu lañ waalima mu xam yusufa yusufa annahum ne ñoom laa yaliqu yellut biim ci ñoom asadaqata sarax raqa ci la yëram lahum ñeen leen nag yaramam daw waa darakat mu jot ko rahmatu yërmande fa araada mu bëgg nag an yetaarrafa mu xàmmeeku bi nafti ci boppam la mu ñeel leen boobu la bëgg a feeñal boppam nag farafa mu yëkkati alxijaaba kiiraay baynoo digganteem wa baynoom ak diggante mbokk ya ci la nag euh, daal di feeñal boppam summa qaala mu wax de gannaaw ba yaram wa dawee ci la ne alaalimtum a xam ngeen maa faaltum la ngeen defoon bi yusufa ci yusuf mina dar bi ci dóor yi ngeen ko doon dóor wal bay ak jaay gi ngeen ko jaay wa xëyri ak dudul loolu muy sànni ko ca teen ba ndax yéen a ngi fàttaliku loolu waa axii ak la ngeen def mbokkam ma min hadmikum ci tooñ gi ngeen di tooñ lawu ñeel binyamin baada firaax axii gannaaw bu mu tàqalikoo mbokkam yusufa balaa muy xàmmee ko mbokkam yi def na leen man ax a ngi fàttaliku la ngeen defoon yusuf yóbbu ko ca àll ba daal di ko door sànni ko ca teen ba waa daal di ko jaay ne ab jaam la ak gannaaw ba ba ngeen ñàkkee Yusuf ngeen di tooñ Binyamin di ko toroxal ndax taqalikoo nang mbokkam de ndax yéen a ngi fàttaliku loolu is antum ba nga xamee ne yéen jaahiloona way réere ngeen maa la nga xam ne yowulu dana dellu yi jëm si moom am lu Yusuf a mbiram Yusuf <coughs> jamono ba ngeen di def loolu xamu leen fu Yusuf di mujj a ah, xaaloo ñu wax ko baada an arafu gannaaw buñ ko xamee li ma zahara ngir la feeñ ne ñeel leen min chamaayir yi ci ay mandargaam bañ njortoo kii daal dafa mel ni Yuusuf ndax am na màndarga yu bari yu leen yi wan ne la daal kii Yuusuf la bokk na ca mandarga ya mooy doomi Yaquba ya ñu amoon kattan lañ ñu amoon doole lañ ba nga xamee ne yusufa jël na binyamin ñu laaj ko ba sonn joxul leen rubil mooy mag ma daf ne buur bi delloo ñu suñu nakk ji wala dana xaacu ci misra xaacu boo xam ne képp ku ëmb rek doom ji dana tuuru ndax ñoom kattan googu la leen yàlla mayoon buñ yuuxoo dëkk buñ yuuxu ku jigéen jëfa ëmb ëmb ba yàqu te nag lenn rek moo ko mën a fomm mooy ku bokk ci njabootu Yaquba laal ko ba demee ba bëgg a xaacu rek Yuusufa wax doomam ju ndaw ja ne ko demal laal ko boo demee laalal baaraam ba rek mu ne rek xaacu rek xale bi laal baaraam boobu mu daal di mu ne a ah, kawteef lii de ku bokk ci doomi Yaquba rek moo ko man te kii Yuusuf ne ko sama doom la loolu jaaxal leen mu ne buur bi delloo ñu ko wala ma song la de amoon nañ kàttan goo xam ne ku bokkul ci doom doomi Yaquba yi mënu koo dékku ba mu songoo Yusufa rek Yusufa yëkkati ba ci kaw dóor suuf ne ko yéen waa yéen waa yéen doomi Yaquba yi da ngeen a foog ne rek am kattan ah mu ne jëlli bi ma daane nii ku bokkul ci njaboot Yaquba mënut ko de yooyu nag ci lañ xamee kii dafa mel ni Yusufa la ànd ak laaj bu mu leen laaj xaaloo ñu wax ko nag ne ko ay naka ndax yow laante yow Yusuf yaa di Yusuf ne ko yow yaa Yusuf qaala mu ne ana man yusufu maa yusuf wa haada kii axi mooy sama mbokk rek laa wax de ci leen xammariku nag arafu xam nañ yusufa bi dalaayili arafu xam nañ bi dalaayili ci tegtal ya anna haada ne kii yusufa moo di kaana nekk na bàyyi sori min an yakunu mu nekk haada buur bi hoo yusuf di yusuf indahum fa ñoom mos ñoo foog ne buuru misra yuusufa la seen xel musul dem ci loolu walakin waaye nag lamma am saka ba mu téye dégg nga binyamin wala doomu yusufa ba xadaba rubil meram rubil woowu te fekk rubil kabirum mooy mag ci ñoom wa kaana nekkoon awlaadu yaquba doomu yaquba yi aqwiya di way dëgër wa fiim nekk na ci ñoom ñëpp sirun mbuur mboot mooy isaa xadifa bu meree waaye duñ kenn minum si ñoom fii baldatin ci ab dëkk wasaa mu daal di xaacu rek laa xoolee xaacu moo di yooxu asqatat rotal na an nisaawu jigéen ñi kullan ñoom ñëpp aji natawu na seen doom ya xaddada tëkku na yusufa qaala loo mu ne ko rubil ne ko ayyuhal maliku e yow buur bi illan tarudda boo delloowut ilay jëm si man axii sama mbokk saa si yow danaa yuuxu fii misra ci misra sayxatan yuuxu goo xam ne laa tatruku دبي fi haa ci Misra imraatan jigéen imraatan jigéen hublaa bu ëmb illaa alqat lu mooy sànni na janiinahaa mbéemutam mooy doomam إذا هم بريتو واحد كان من أولاد يعقوب شي دومي يعقوب أن يفعلوا مرفكو لا يمنعوا دكو تيرف إلا إذا مسوا لمي ملالكو هذا كان من إخوتي جنبوكم بمنا يوخ ممرو بالقال وانو يوسف لولد نيل دوم لو نيل كو سفين بنداو نكو إساب دمال ila hada rajuli ci góor gi wa masahu laal ko rek xus jalal bi asaabi ci baaraama mi faqa dong loolu rek ngay def fala ma amma ba muy too bi sayaati ci yuuxu am sa mu daal di ko téye wala du yusufu mu daal di dal alxare bu mer ma wa sakkata mu daal noppi de fa qaala mu ne nag lii yaa ayyuhal maliku e yow buur bi shay'un ajibun bu yéemu man haza alladi li nga xam ne azamtu ci def ko maa yaxum du dox bayni sama diggante wa baynu ak digganteem illaa waladu yaquba lu may doomi yaquba wa hada kii nag wax kii xaala wax na loo ñeel ko yusuf ne ko hada kii lay sa yakut waladu yaquba doomi yaquba de wow moom waladi sama sama doom la ana man dégg nga daaxilu aji ko sakkun sikk awalan ci njëlbeen maanaam ana man daa man maa ko jur rek laa wax de daxaloo dugg na ko sakkun sikk awalan ci njëlbeen maanaam dañoo sikkoon ci kii doomi yaqub la wala doomi yaquba yusufa wax leen loolu réeral leen nag waaye doo nekk na fa moom ruubiin quwatul musaaraati kattanug bëre fa qaala mu wax lil malik ñeel buur bi ne ko laa buddu du mën a ñàkk an taslama nga jébbali ilayhi ci man ak xii sama mbokk loolu fa sa asrama ko danaa la daana de araada bëgg na nag an yestuumu songu alaa yusufa ci yusufa qaama jug na yusuf wa xamaloo mu yenu ko wa saramu mu daaneel ko de qaala lawoo yusuf ne ko antum yéen awlaadu aali kanaan yéen doomi ñooñ kanaan tasu nuna da ngeen an laa quwata ne <laughs> da ngay defoon ne yéen rek am doole <clears throat> faraa mu min quwati yusufa ci kattanu yusufa maa nga xam ne lam yasunu njottuut annoo ne moom yujudu dañ ko am fii xëyri awlaad yaquba ci ludu doomi yaqub fa lihaza la anta yusuf yaa mu ne ana man yusuf maa di yusuf wa hada kii waa axi mooy sama yaquba yi daal mer ba mu yégee buur misra jàpp na doomam daal di bind leetar wa kataba bind na yaquba yaquba ilaa yusufa ci yusufa risalatan leetar bu tàng fekk doomam lay bind mu ne bismillahi maa ngi commencé suur yàlla rahmaan yàlla mi aji yéram min def yëpp ci àddina rahim yàlla mi aji yéram ña ko soob ci àllaaxira min yaquba leetar bi mu ngi jógee ci yaquba israil israil moo doon turam israilullahi israil bi yàlla abdullahi jaama bi yàlla bi bu ne isaaq doomu isaaq zabihillahi अमा बाधू गना न xaw mu nit lañ yoo xam ne wukki la wakkil lañ alay naa ci ñun albalaaw nattu nit ñu bëri nattu lañ jaddi sama maam ibrahimu ulqiya sànn nañ ko fi naari safara hatta xaasu ba xett bi ko allah yàlla rek laa wax de fa saarat safara si mujj bardan daaji sedd wa salaaman tey jàmm alay waa bii sama baay isaaqa wala jot ko allah yàlla bi zabhin ci kuy azimin baa ji màgg waana yaquba man mii yaquba kaana nekkoon na indi fu man wala dun doom woo moom ahabu awlaadi mooy doom ji ma gën a ji a sopp ilay jëm ci man maanaam mooy doom ji ma gën a bëgg fasaaba mu yóbbu bii ci moom ixwatu mbokkam ya fa qaalu ñe im noonu moom halaka halku na maanaam deena fil bariyati ci jéeri ji mooy àll ba wa baqee des na indi fu man axu mbokkam atasaru bu ndaw ba atasalla may mi dégg nga way ko defut saw fa adduma danaa ñaana alayka ci yow bi daawatin ci ñaan goo xam ne tudriku dana jot asaabi juróom-ñaar min aqibika say delloo ma sama doom boo mu ko delloowul ma ñaanaloon ñaan goo xam ne sa juróom-ñaari sët duñ ci mucc xam nga leetar bi tàng na te doomam lay ñaanal waaye ñaanagul nag leetaram bii dañ ci déggee ne koo xam buñ ko tuumaalee loo xam ne wóor na lu ko def mën ko wedd daf ne ko ñun duñ sàcc duñ jur sàcc ndax wóor na ko doom du sàcc loolu moom leer na ko koo yar xam ko kon nag tuumaal gi nañ ko tuumaal sàcc du dëgg delloo ma ko boo ma ko delloowul ma ñaanal la lu bon loo xam ne yow ak sa juróom-ñaari sët du ngeen ci mucc ah yusufa jàng leetar ba waaye tiitul nag fala maa qaraa ba mu jàngee yusufa al baraawata leetar ba kataba bind na ilayhi ca bàyyi jërek laa wax ko bismillahi rahmaani rahim min yusufa mu jugee ci yusuf malik misra buuru misra amma ma zakarta waye lenga tudd min asari abaika ci ngeneenu sa baay asaarihina yu baaxi fa innahum naka ñoom ibtalaahum natt na leen allahu yàlla fa sabaru ñu muñ fa nasarahum mu dimbali leen allahu yàlla de yàlla daf leen nattu waaye dañoo muñoon yàlla dimbali leen rek laaxu de kon yow it fas biir muñeel comment sabaru comme niñ muñee woon loolu rek la ko wax mu ne ko say baay ba leen yàlla nattoo dañoo muñoon yow it bu la yàlla nattoo muñal rek bu fa jékki di ñaan ñaan gu bon muñal rek comme niñ muñee woon yàlla dana la dimbale ndeysaan ah fa qara mu daal jàng risalata leetar bi fa xaala mu ne haasi leetar bii laysa nekkun min rasailil muluki di bokk ci leetaru buur yi laysa nekkun haasi leetar bii risalata malikin di leetaru haasa wax ji le kalaamul anbiyaa waxu yonent yi ne de haasa yusuf kii kay yusuf la haada ki yusufa yusufa la de ba mu jàngee lettre bi ne lii du waxi buur lii waxi yonantu la kii yusufa rek la mën a doon doom yi tontu di ko tontu bu ñàkk teggin xaaru la ñu ne ko ante yow mañ noonu ab dof nga rek de léegi daal dof nga buuru misra nga naan yusuf fekk moom xam na luñ xamu rek de yusuf la laaj nañ ko ay nekk ndax yow la ante yow yusuf yaa yusuf قال من أنا من يوسف مال يوسف وهذا كي أخي ما اسمه بوك بنيامين قد من خولنا الله ولا ناس إنه نكلهم بام من يتقي كرغل الله يقف كرغل الله يا الله ويصبر من لور يكوي واو جام يد فإن الله نك الله لا يدور سانكو مك أجر المحسنين تيابين يرفتل سكرم jiitan jiitangoogu ku bëgg a kawe bëgg am ndam bëgg doo yàqule ñaar yi rek moo la war mooy ragal yàlla te muñ lor ya yàlla bu la bëggee yëkkati foo ñu lor la taay mbindeef kese na ñoo lay lor nag kuñ lorut du mën a kawe ak sang ci ñaar la nekk rek laa wax de mooy ñeme coona ak gàddu loru mbindeef ragal yàlla inna siyaadata fitnatayni fala takun ibn al mashayikh fi ma bi zahidi mu ne sang ci ñaar la nekk yow doomu sëriñ bul woon gannaaw ñaar yooyu de hamdul mashaqqati wa ihtimalu azal wara fa laysal musammiri li ulaaka al qaidi foo nga ñeme coono muñ lor yi la mindee fi di lor ndax ku bëgg a kawe ak ki toog bëggut a kawe mënuñoo xem Yuusuf ne ne bañ ragalee yàlla muñ lor ya ngeen ñu lor moo tax yàlla xewal ñu teg ñu ci place bi ndax yàlla kenn du def lu rafet mu di ko sànq xaalo ñu ne ko تالله ينجي جنتي على نك لقد آسرك والله جن لنا الله يلا علينا سنكو بالملك تنقر وغير عبد المم ين كي خمنا يلا فلا يكترك سنكو وا وإنا نكون وإن كنا دير نكون لخاتين دوي بكر ده آسمين وي بكر لني في أمريكا سنبير ين يو جون رك def bakar mbokk yaa ngi tuub nag ndax rëccu nañ de waaw ndax gannaaw ko mat nañ waaw matuwaayi góor yàlla yi xaala yusufa ne laa tasiba di tëgee daange laa xat ba di tëgee daange aleykum ci yéen al yow ma tay de bis bii duma leen yedd ndax bis la bi nga xam ne ci la ma yàlla wana rek waaw samay mbokk yàlla naxa nasaxal pexem seytaane kon du ma jékki di leen yedd de xas xas sawu jagleel bis ba bi zikri ci tudd li ndax bis boobu masinatu tasri bi mooy barabu yeddaange rek laa wax fa xayruhu lu dul yedd aña nag mooy li gën a jaadu keroog bis boobu ci lan mënoon la yedd mu saf ndax yàlla may na ko ndam ba ñëpp xam ne waaw moom moo faree kaw mu dal di wàcc nag de ne du ma leen yedd mukk al yow ma tey nag yaxfiru dana jéggal allah la kum ñeel leen boobu moom yàlla arhamu moo ëpp yërmande ci way yërëme yi wasaalum mu laaj leen an abi ci baayam mooy leen an sama baay fa qaalu ñu ko zahaba dem na ay naaw ñaari bëtam ngir fàttaliku la jooy na ba gumba fa xaala yusuf ne isa boo yóbbu leen bi xamis yi sama simis haasa bii woowu simis boobu xamisu ibrahima mooy simisu ibrahima allazi bi nga xam ne labi soo sol sol na ko xiina ulqiya ba sànneef nañ ko fi naari safara bañ sànne ibrahima safara yàlla daf ko andil simis bu jugee ci aljana doomam yi di ko donnante mu mujjoon ci yusuf moom la wax ne yóbbu leen ko seen baay de ndax ku am jàngoro rek bu la xet ga xañee jàngoro ga kaana nekkoon na fionu xii ca doqab yusufa fil jubbi ca mu nekkee ba woowoo si mis boobu minal jannati mu ngi jugee aljana amaro diggal na ko jibrilu jibril bi saali ci mu yónnee ko ci yaqub de wa qaala wax na mu ne ko inna fii naka rekk ne simis bi rihan kat goo xam ne laa yalqaadu dajeek ala muftaran ci kuñ nattu illaa hu fiye lu mooy yàlla may na ko jàmm boo feebaree bu la xañee nga wér boo gumbaa bu la xañee nga daal di gis mu jël leen simis bi ngeen yóbbul ko faal ku sànni leen ko ala waji abi sama kanamu baay yaati dana mu dikk basiran daa ji gis rek laa wax de ay yasiru dana mu mujj basiran daa ji gis bu gisee nag ba xool waatoon yi andil leen ma bi ahalikum seen ñooñ aj may na mboolem seen andil leen ma mbokk gi yëpp na ñëpp ñëw bu kenn des wala ma fasalat ba mu génnee tabaxi misriya alxeeru njëgg ma rek laa wax de ña ngay dellu nag kanaan bañ demee ba génn dëkki misra ya xarajat génn na moom njëgg ma mooy doom yaqub yi génn nañ minaar yi ci misra ci tabaxu misra ya loolu rek lañ ci namoo xaala wana abuhum seen baay liman xadara ñeel ña teew min ba nii ci doomam yow awlaadim ak seen sët ya bañ génnee dëkki misra ya rek yaqub ne inni naka man laa jidu dana ma yëg yusufa ket yusufa rek laa wax lawla an tufanniduni su du toon ne da ngeen ma dangeen ngeen ma dégg nga juumloo bu du woon loolu ma wax leen maa ngi yëkkat ak Yusuf wala nga ne lawla an tufanniduni su ngeen nekkutoon ñu may juumloo kon geen ne ma wax nga dëgg de bañ génnee dëkk Misra rek xet ga xañ ko ndax xet ak aljana moo ko xañ te xam nga ne xet ak aljana amul lu may ci kaw suuf lu may ci Yusuf moo tax mu ne maa ngi yëkkat ak Yusuf bu ngeen nekkutoon koo xam ne lu ma wax ngeen ne ma waxoo dëgg konoon da ngeen ma dëggal waxoo dëgg gi ne luñ ci dama mooy ab dof nga rek noonu lañ ko doon jàppee lamma xarajoo bañ génnee mi ne naar yi ci ca dëkk misra ya wa bayna misra nekk na diggante misra wa shaam masiratu salaasati ayaamin doxu ñetti fan wa samanati ayaamin wala doxu juróom ñetti fan aw aksara wala ëpp loolu xaala ci la wax yaquba ne samimtu foon naa rayaatu yusufa xetu yusufa zalika loolu li anoo ndax moom chamma xencu na rayat aljana ti xeto aljana de ba gaa yi génne misal rek xeto aljana da koo xañ wayaalamu ta xam nana anna chey anne am mbir min aljanati bu jugee aljana lam yekkun nekkul illa inda yusuf lu moy ci yusuf moo tax ma lawla an tufannidouni su du woon ne yéen a ngi may desaloo ay tu safiwuni da ngeen ma desaloo la sadaqtumu ni kon ngeen ne ma wax nga dëgg de waaye daal lu ma wax ngeen jàppee koy kaf wala ngeen jàppee ne mbëggeel góob moo may wax loo qaaloo doom yi ne ko gis ngeen ne ko doom yi tonte moo waral kilifa gu ne naa muñal njabootam gis na ko doomi tonte ñu ne ko tallaay ñuy gën ci yàlla innaka naka yow la fi dalaalika yaa ngi si njumti ga alxadimi baa ji yàgg njumte gu njëkk ga nekkoon ba léegi yaa ngi ci xatayika yaa ngi si njumti ga yàgg mooy fii min ifraatika ci dégg jéggi doyo gi nga jéggi doyo fii mahabbati ci bëgg yusuf wa rajaayi liqaayi ak yaakaar dajeeg moom ala bon di la ànd ak sorik dëhël ba tàqali bu yàgg waaye ba léegi yaa ngi yaakaar ne mën ngaa dajeg yusufa xam nga loolu njumte la waaye yaa ko bëgg mbëggeel goo xam ne bëggeew ko kenn loolu njumte la yow ba léegi yaa ngi ci njumte goog de falamman jaabam andee albashiru aji bég la jë mooy yahuda bil xamis si simis ba wa kaana nekkoon na nag xan xamala yéen waale la xamisa dammi simisab deret ba bañ sànkee yusuf simisam biñ jëloon taqal ko deret da koo indiwaale indiwaale simis bi nga xam ne nag moom la ko Yusuf yóbbu yóbbee ay den ba tey fa ah ba mu bëgg nag an yufrihu mu bégloo ko kama ahsanoo comme nu ko jàppaloo mu ne ko lii laa la tiitalee woon waaye nag tey simis bii laa la bégalee de alqaaw sànni na ko tara sànni na alxamis simis ba ala waji ci kanamu baayam fartadda mu daal di dellu raja dellu na basiran daa ji gis rek laa wax de xaala yaqub ne alam aqul mën a waxuma lakum ñee leen ne inni naka man alamu dana ma xam ne laay ci yàlla maanaam tax ma lu ngeen xamul ba muy gis rek la xam ne doom jala moo ko yónnee ne xanaa waxuma leen woon ne xam naa ci yàlla lu ngeen xamul waxi mag du fanaan ala day guddee وخون دومي يوسف ديو ني نكو دير واي مودي نلن يير لا وخ دي اما اخبرتكم منخ دوما منخ واخو مولين اون ان يوسف ان يوسف حي اجي دند لا لاني نخ ما علمت قمنا شان بير مو خمه لا تعلمون وين خمو لين كو وذلك لول لي امور انت اي مير لاكو جيري نوم ديف با خمنا يوسف باغي دندو موي اتاو ديكل لاكو ملك الموت قال له منكو انت ياو قبضت جلنرو يوسف رو يوسف, رو يوسف رو malakul moot dafa ñëw yaquba ne ko manax yow yaa rey sama doom yusuf xaal mu ne ko laa déedéet yusufu lam yamut deewut woo moom xëy na ji dund la rek laa wax de yaquba yaquba en doo mu aadana mu bi waataaw mu dikkal ko azibu till ga yazuru di ko ziyaare xaala wax na law ñeel ko yusuf ne ko ayo azibu e eh yow till bi kee fa akkalta noo di sama doom xaala till ne ko maazallaahi maa ngi musul ci an naa ku la ñu lekk saatan ab gàtt fii hayi ka sa karte wala sima wala du ko rawatina sa doom ñun gàtt bu dëkk ci dëkk bi sax xalaatuñ koo lekk waxuma laak sa doom de xaala wax na loo ñel ko yusufu tiila wax nañ ne nekk nak yow akkaltu yaa ko lekk nee nañ yow till yaa lekk sama doom yusuf xaala mu ne laa déedéet yusuf yusuf ma akkaltu lekkuma ko xoo moom ayun aji dundale de muy ñaari xibaar mu xam ne ko yusufa deewut wa saali sa ñetteelu xibaar ba mooy ruyaa yusufa géntub yusufa ga woo moom it xaqaku foo mu dëggu yusufa gént na ne doomam doomi baayam yépp danañ ko jootal muy fukki doom ak benn ak baayam ak tantaam yanquba xam na ne gént googu faw mu xam de annahu na yusufa laa yamutu du dee mukk illaa isa waqaa lu mooy tàbbina misdaaqu tilka ruya lay dëggal gént googu mu xam ne kon dee ak yusufa nekk jamono ji ndax gént ga amul dee farihaada ngir ñett yi xaala wax loolu ñeel ne alimtu xam na mais laay ci yàlla maa laa taalamuuna lu ngeen xamul de xaaloo doom yi ne ko yaa abaana e yow bàyyi suñu istaxfir jégalu ñu zunuubanaa suñu bakkaar innaa ñun kun naa nekkoon nañ kay xaatiina di way bakkaaru ñun ñoo juumoon rek ñaanal ñu yàlla yàlla jéggal ñu xaala yaqub ne sawfa astaghfiru dana ma jégalu lakum ñeel leen rabbi borom sama innahu nak moom moom alxafuru maa ji jéggale arrahimu maa ji yërëme mu ne danaa ñaan yàlla mu baal leen axara yéexe na zaarikuloo ila saxari ba ci njël mooy fajar leekoo na ngir mu nekk aqraba di gën a jege ijaabati ci nangu ñaan aw ila laylati jumaati wala xaar na ba guddik ajuma mu ñaan yàlla yàlla jéggal leen aw ila an yalqaa wala ba dajak yusuf yusuf li àndoon ndax moom saahibul xaqi mooy borom xaq ga de moom lañ tooñoon seen baay ñaanul yàlla mu baal leen ti sensé daf na danaa leen jéggulul yàlla luy loolu mooy danaa xaar ba fajar ma ñaan yàlla mu baal leen ñaan ko gën a gaaw a nangu wala danaa xaar ba guddi àjjuma wala danaa xaar ba dajeeg Yuusufa ndax moom ngeen tooñoon bu leen baalee ba pare nag ma yàlla mu baal leen de <clears throat> su ma tawajjahu topp ñu jublu nag ilaa misra jëm misra waqraja mu génn yusuf yusuf wala kaabiru ak mag ña nag li talaqihim pour waaw tertu leen yaqub ak njabootam ñi ngay ñëw misra yusufa daal di génn ànd ak waa misra di leen tertu muy mashad bu rafet farsala mu yónnee ilayhim jëm ci ñoom woom te ñoom sabuuna baytan juróom-ñaar fukki kër lañ jamono boobu njabootu baayam màgg nañ ba mat juróom-ñaar fukki kër arsala yónni na lewum ñeen leen sabina bahiran juróom-ñaar fukki gélëm li yaxmalu pour ñu yenu mataawum seen bagage de wa ahaalim ak seen ñooñ juróom-ñaar fukki kër mooy juróom-ñaar fukki nit rek mu yónnee juróom-ñaar fukki gélëm ngir sëf leen fa de waaw wayaatoo ngir ñu dikk faqara de mu génn yusuf fi istiqbaali abi ci teeru baayam ba yusufa di génn nag ala yamin yi ma ngi ca ndey jooram arbaatu alaafi abdin ñeenti junne jaam wa ala yasaari ñeenti junne jaam ak ci càmmooyam wa min xalfi ci gannaawam ñeenti junne jaam wa min amaami ci kanamam ñeenti junne jaam kulluum ñoom ñëpp yamlikuum moo leen moom mu ngay génn nag di baam nekk buur boo xam ne buur bu wegu la fa xaraja mu génn yusuf wal jeesu ta soldaare maaw ñi nga ànd moom woo moom yarka bu mu ngay war farasan ab fas ala yi nekk na si kawam taaju mbaxanaam buur ma ma nga war fas waa yi war ko jaam war ko musol sol mbuur buur falamma qarabu bañ jegee min yaquba ci yaquba haajat jéqi na maanaam yëngatu na aljuyuusu soldaar ya wa sahala mu ngeel alxeylu fas wa wa taxaraka mu yëngatu annaasu ni ñaa harakatan yëngatu kabiratan bu mag kaanal qiyaamata mu mel ni bis penc xat dafa taxaw bañ demee ba jege baay ja soldaar yi yëngatu fas yi daal di ngeyal nit ñi yëngatu yëngatu woo xam ne boo fekkoon jotaay ba danga naan bis benn ci taxaw na rek laa wax de ci la jibril ñëw nag ata dikk na jibril waxaala mu ne yuusuf inzil wàccal fa farasi ci fas wi wam si doxal tawaadu an ngir wàccee sa bopp laa bii ka ñeel sa baay de wàccal fas wi nga dox dajeg sa baay ndax kenn du yëkkati boom ci kanam baayam fa nazara mu daal di wàcc nag Yuusuf wa masaa mu dox ala qadame yi ci ñaari tànkam yaa xata staqbala ba mu waaw jàkkaarloog waalidahu waajuram Yaquba fa sallama mu daal nuyu alayhi ci moom rek laa waxee waaw qaala lahu mu ne ko jaam yi kullan ñoom ñëpp ci tata asra alfan fukki junne jaam la juróom benn fukki junne fukki junne juróom benn min a raqiqi ci jaam milki yi ñoom ñëpp maa leen moom entaq entaq dégg nga ontiqhum danaa leen goreel lillaahi ngir yàlla farahan ngir bég bi liqaayi ko ci dajeg yow rek laa wax de mu ne bàyyi fukki junne jaam juróom benn ngi nii ñoom ñëpp maa leen moom goreel naa leen ñoom ñëpp ngir kontaan gi ma kontaan ci dajeg yow nitu yàlla yi in kaana bu nekkee Yuusuf yontiqu di goreel haasa lu toll nii ne rek ci jaam farahan ngir bég bi liqaay yaquba ci dajeg yaquba fa kam sa yontiqu ñaata lay goreel alxaqu yàlla taala kawe na bi liqaay habibi ci dajeg soppeem ba sallallahu alayhi wa sallam yusufa moo mën a goreel lim bu toll nii ngir kontaan ci dajeg baayam kon yonent bi bu dajeg yàlla bu dajeg yonent moom ñaata nit lay goreel ku ne xam na dana goreel mbooloo mbooloo mu bëri de falamma daxalu bañ duggee ala yusufa ci yusufa awaa fat na ilay jëm si moom bu way yi ba ba njaboot ga ñëwee misra yaqub ak njabootam a dafa jël baayam ak yaayam kii mu teg ci ndeyjoor kii mu tekki ci càmmooy wa qaala mu ne udxulu dugg leen nag misra misra insha allah nem soom na yàlla aminina di way wóolu war a mu yëkkati abu way ñaari waajur ma la asi sa kaw lalam ba bañ demee ba egg nag mu jël ñaari waajur yi teg leen ca kaw lal ba ngir yëkkati leen waxaru ñu daal di rot nag law ñeel ko sujjuran di way sujjoot waa ñu ñu wàcc nag daal di ko sujjootal fa xaru ñu rot kullan ñoom ñëpp muy ñaari waay juróom ya ak fukki doom fukki mbokkam ya ak benn wa sajadu ñu sujjoot tahiyatan ngir nuyu law ñeel ko fi zalika zamani ci boobu la jamono xam nañu ne sujjootub lunku la muy sëgg wa qaala yusuf ne yaa abati e yow sama baay haasa lii taawilu ruyaaya muy firi sama gént min xablu bu njëkkoon gént gëm a géntoon firi maa ngi histoire Yusufa waxoon naa ne ci gént la commencé fu mujj ci nekk dëgg rek laa wax ñu moom kon nag bul xeeb gént ba aji gént de maanaam waaw nit ku taxaw rek ne bëgg naa def nangam bëgg naa egg barab sangam ne naan ko ci gént nga nekk gént ga mën naa dëggu ndax xisaab Yusufa ci gént la commencé waaye mujj na dëggu de haasiru yaa bi la gént allati mooy bi nga xam ne raaytu gisoon naa ko xablu bu njëkkoon xat jaala def na ko rabbi borom sama xaqan muy dëgg waqad ahsana rafetal na bii ci man ilayee ci man is axrajani ba mu ma génnee mene sin ni ca koso ga waxut ba mu ma ca teen ba ndax bañ naa rusloo mbokkam ya ndax ñoo ko dugaloon ca teen ba wala nga ne waxut ba mu ma génnee ca teen ba ndax ba mu génnee ca teen ba jaam la doon waaye ba mu génnee ca kosogo buur la doon de moo tax mu fàttaliku génn gëm génn ca kosogo lam yaqul waxut minal jubbi ba ma yàlla génnee ca ten ba takaruman ngir tedd li àllaa tax jala li àllaa tax jila wala boog li àllaa tax jala ngir bu mu rus ixwatu mbokkame de xaala mu ne isa axraja nii ba mu ma génnee minal si ca kosogo maa ngi sant yàlla mi ma génnee ca kosogo li ànnal jubba ndax ten ba hum mbokk yi alladina ñoo ñi nga xam ne adxalu dugal nañ ko fii ci moom law zakarahu bu ko tuddoon rek la xajiloo ko ñu rus way ànnal jubba angir na teen ba xaraja génn na minu ci moom ila riqi jëm ci nekk jaam wasiñ nu kasago nag laa wax de xaraja génn na minu ci moom ilal mulki jëm ci nguur de wali azali moo tax sakara sant na allah yàlla boo tasakara mu fàttaliku xurojoo génn gëm génn mene siñ ni ca kasaga laa minal jubbi waaye waxuma ca teen wa de maa ngi sant yàlla mu ma génnee ca kasaga wa jaa mu andi bikum ci yéen minal bët ci àll ba àll ba ngeen dëkkoon yàlla andi leen maanaam yàlla jëlee leen dëkk àll bàyyi nee na dañ koo sib dañoo sib nit muy dëkk ci àll ba yàlla ñaareel bu yónni yónantu rek ca dëkki taaxee la ko la ko yónni wala fa lay mujj waaye du yónni ak yónantu mukk bu nekk ci àll ndax nit àll ñaareel dañu ñàkk teggin waaw duñ xam xorma duñ yeewu it mm. moo tax yàlla ñaareel du fa xebal ab yónantoom de ca dëkk taaxee rek mosoo gis xutbu zamaan bu rekk ci àll ba xutbu boo gis rek yàlla na ko ca taaxee fa koy fa la koy fa koy dëkkaloo rek laa wax de may dëkk ci àll dañ koo sib laa wax loolu la bàyyi wax moo tax Yuusufa sant yàlla ne ñu ngi sant yàlla mi leen ci kaw ga andi leen ci misra min baadi an nasaxa gannaaw bu mu yàqee mooy afsada yàq naa seytaanu seytaane bay sama diggante ba bay ne ak samay diggante mbokk inna rabbi nag sama borom wala inna rabbi nag sama borom latifun aji ñeewantu la li maa ku ko soob woon nag moom woo moom alalim waa ji bi xal xii ci mbindeefam alakim waa ji xare ni fi san yi ci liggéeyam ba amee nag ina tasara jéggalu na loo ñeel ko ixwatuwam mbokkam ya bokka mbokkam yi baalu nag ma ngay rafetal aadaay ñooñ yàlla bu leen mayee ndam dañuy fàtte seen ndam la di tudd lu baaxi nit ñi mbokk yaa ngi jéggalu xaala wax na lawum ñeel na yusufa ne leen ah yéen kay joon ngeen di jéggalu ndax antum yéen faaltum def ngeen li ñeel ma shay'an mbir kabiran bu mag lu rëy ngeen ma defal mu ngi leen di nag lu baax lam xam ci ñoom ngir lan ngir ñu bañ a rusde yéen lu rëy ngeen def waaw ñu ne ko loolay lan mu ne ana man kuntu nekkoon naa asmaw di dégg daay man ba faw subhanallah xéemu nañ ci yàlla rek laa wax de haada kile kaana nekkoon abdan di jaam faqat dong saara mujj na malika misra di buuru misra ab jaam la woon tey mu xëy di buuru misra loolu laa doon dégg wala maa jiitum ba ngeen dikkee nag waantum te yéen ixwati yéenay sama mbokk ali moo xam nañ ne an nii ne man lastu nekkuma bi abdin di jaam yéen ba ngeen ñëwee rek lañ xam ne man nekkuma jaam ndeke waaw doomi yaqub laa antum yéen rafaxtumuuni yéen a ma yëkkati de faaltum def ngeen bii ci man mi ne takk ma di ci mbir moo xam ne laa yox saa mënuñ koo compte li ngeen ma defal kay mënu ma leen koo fay waa ko yéen amul lu ngeen di jégalu de kaana nekkoon na muslim di leen misloo bi haza ci wax ji le waa xaama sax na nag indoo fu moom abu waaw ñaari waaye juróom ya arbaan waaye sirina sanatan ñaar fukki at ak ñeent aw saba sarata sanatan wala fukki at ak juróom ñaar waaw la baayam ak sax ca moom 17 ans wala 24 ans wa kaana nekkoon na muddatu firaaqi diirëb tàqalikoom samaani asratan 18 ans aw arbaina wala 40 ans aw samaanina wala juróom-ñett fukki at wa haza li huwa saxihu mooy li gën yusufa tàqalikoom nag baayam juróom-ñett fukki at yàlla yàkkamtiwut moo tax nag mën naa yàgg fekk xewal rek la <clears throat> juróom-ñett fukki yusufa tàqalikoom nag baayam baayam dib yonentu yàlla jooy ba gumba Yuusufa nekk ci nguur gu rëy saa yu bëggee leetar Jibril na ko déedéet loolu laa la wax dana la jàngal ne natt lu mu yàgg-yàgg rek bul naagu ci yërmande yàlla Yaquba mosul naagu guddi gi lënd moon na yàgg na waaye ba mu bëccëg gi ñëwee waaw lëm lënd moon leer na lu ko ëpp juróom-ñett fukki at lañ tàqale ko wa haazali wa sahiih mooy lu wér wa mu teewal baayam nag al mawtu dee ci la yaquba daal di génn àdduna nag foo saa mu dénk yusufa yusufa njëkk muy génn àdduna an yaxmiloo mu yenu ko dégg nga waaye du funu mu denc ko indi abi ca de mu ne ko bu ma génnee àdduna yóbbu ma saam denc ma sama baay isaaqa fa ma daamu daal di woy bi naf ci ci boppam wa defanu mu rob ko sama foofu yusufa hen ko denc ko gannaaw mu génne àdduna su ma aadamu delo nag ila misra jëm misra waa qaama mu sax waa baadoo gannaaw ga salaasa wa isrina sanatan waaw ñaar fukki at ñett gannaaw baayam génne àdduna delluwaat na misra sax fa vingt trois ans wala maatama ba mu matee am róom mbiram dem na ba xam ne dee ñëw na nag waali moom moo xam andoo ne moom laay duumu du sax wa daa wa taqat mu namm nafsuhu bakkanam ilal maliki ci buur ba daayima bi aji sax ci la wax walaay jiñ bëgg a jàng de xaala mu ne rabbi qad aataytani minal mulki danañ ko jàng ba demee ba nga xam ne dee na la wax loolu léegi nag muy tënkaat histoire bi la xew diggante Suleyxa ak Yusufa mu la maa taw bañ dikkee mooy ñaari waay juróom ya xasa nettal naa lay ci moom Yusuf xisata Suleyxa histoire Suleyxa hatta balaxa ba mu jot ilaa xabari taswiji ci xibaaru takk gi mu takk bi Suleyxa Yusufa nettali na baayam digganteem ak Suleyxa la ca xew ba ni ko takkee wa kayfa waqa naka la xewe alxaatu beekoor wasaare mu mujj annaas nañ yaatuna jikki laa yusufa jëm ci yam taaruuna di sàkku dundu loolu lépp nettali na ko baayam wa kaana nekkoon Zulayxa kat bakat jooy na min mahabbati yusufa ngir bëgg yusufa hatta amiyat ba mu gumba moo hee ndax kim bëgg jar na ko de wa faraqat teqal na maala lépp séddal ko nu ko joxee kullu man zakara képp ku tudd rek yusufa antatu mu jox ko jusan ab xaaj min maaliha ci alalam xatab taqarat ba mu ñàkk dafa bëggoon yusufa ba boole rek mu jox la alal noonu la dem ba alalam jeex loolay mbëggeel waaye ñoon jamono ji dañuy nar rek bëgguñ dara su lay xaami bëggoon moom gis nga ni mel wala mu yëpp xa desul indaa fu moom ceewun dara dem na ba ñàkk wasaaran mu mujj nag aju san di màggat binta tisiina sanatan doomi juróom-ñeent fukki at dem na baam am juróom fukki at wa kaana nekkoon yusufa isa asbaabu xëye rakiba war na aljawaata naaru góor wa saala naaru góor ga ngexel faalima mu xama naasu nañu kullan ñoo ñëpp an na yusufa ne yusufa xat xaraja génn na lil miirati bu xëyaan rek daraan war naaru góoram mu daal di ngexel nit ñi ñëw nag pour sàkku dund yaati mu dikk tullaabul miira ñee sàkku dund yalzahimuna di buuxante fa yakiru mu natt lawu ñee leen illaa illaa an yajinna bam lëndam allaylu guddi gi إذا جن بنا نميل إلى بدر يان يوم مدير إلى بيت سكرم وا مم يوسف ويلبس مصل أسوف يري كرويا لا ودي وا ويبيت مفران يتعبد الجام يلا حتى الصباح بسوا نون لون دون ديرك دي بخير دم سدل دون دو بقدر جت مصل يري جام كه يا جام يا بسوا وكان نكون نك يسوع مدير النهار بتشك يا الله إنسان غير بمفتة الجاهين ويقيف ده بتشك لب دكتور نهار غير مم يم قيف دك بمفتة ده نام مم تنقول waqafa taxaw na Zuleyxa fi tariqi ci yoon wi ah wa qaalat mu ne Zuleyxa ne yaa Yusuf yaa Yusuf eh yow Yusufa maa samee Yusufa déggu ni daa wooteem wa fil xaddi suba sa nag faala def na zaari kuréel saaneen yoonu ñaareel wa saalisan yoonu ñetteel ñetti fan mu di ko xoo falam yasma déggut Yusuf fa qaala Zuleyxa ne subhaanallahi tudd naa sell buur yàlla subhaana man. tudd naa sell buur bi nga xam ne akarama teral na alabida jaam ya bi taati sababu topp ko rek laa ko de waaw azalamu toroxal ak mën ko buur ya bi maasiyati sababu mooy ko maa ngi tudd sell yàlla mi nga xam ne moo mën a teral jaam ngir topp gi mu ko topp mën a toroxal buur ngir mooy gi mu ko mooy de farafa mu yëkkati allah yàlla azal kalaamu azal kalaamu wax waa de xaloo mu dugal ko fi usnu yusufa ci nopp yusufa فامر مدار ديغال يوسف يوسف قال من قضو جلا هذا المتكلم اجي وحجي اذا ابو يبن البيت مام الى بيتي سمكر فلما جنبهم لنا الليل غدغي رجع جلنا يوسف ودخل مدغ متحبد برب مي جامو يالا فتذكر مدال فاتلو نك وا وخي ندو سوزو فقال مي اين التي انا كي خما تكلم من وخنا عارفا لغي اتو ان من بياتي مام فسلم من عليه مام وقال له منكو يا يوسف يا يوسف انا عرفتني نقم نما xaal yusuf ne ko laa déedéet maaraftu ko xaw ma la rek laa woon nag ñu ñoo gisee waaw xaala sare xaana ko suraana maa nasiitani ak yaa ma gaaw a fàtte rek laa ma de suraana gaaw naa maa nasiitani fàtte gi ma fàtte yaa yusuf nasiitani ndax fàtte nga ma قال يوسف لكم ما عرفتكم ثم لا قم قد مكرك لا وعد وقال الملك انا زليخا من معي زليخا قال يوسف لكم سبحان الله تبنا مثل لبري الله انت زليخا انت زليخا ايوه يا زليخا رسول فنتي بوب فتنه na yaa moom naroon a dugal ci njaaro anti yow ba léegi fi xëy din xayaat yaa ngi ci dund ilal aana ba léegi mu ne ko Sureyqaa bopp finna ndax ba léegi yaa ngi dund xaala Sureyqaa ne ko yaa Yusuf ana man xayaati sama dund kullan lépp zahaba dem na fi mahabatika ci bëgg la rek waa yow nag te dinu yaa ngi nay alee ci man bi xayaati ci dund man sama dund yëpp joxe naa ko ngir bëgg la yow yéen wooma lu may dee قال يوسف لا يا غلام يا قلبي اذا يقول بهذه العجوز كي ما كان مي واول تكون تود لك ان لا حاجه تهاجم وقد يا نانكو فاج لا نيل كو منكو جيرل قلبي يوبكو مو قلم نكو جيرل ما كان مي يوبو نلا وا حاجوم غا فاجل كوكو قالت سري خان يا يوسف انا من